monsieur Guèye na nga def. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey jii Pape Modou Guèye moom moo yor kàddu waaye it communication association des commerçants et industriels du Sénégal ñu gën ko xam ci ASIF monsieur ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci wuyu gi. maa ngi leen di fay di leen jaajëfal di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo leen déglu di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo bokk ci association des commerçants et industriels du ñu wax tey ci li nga xam ne mooy restriction yi ñu nemmeeku euh, tey jii ci département de Dakar marché yi dafa am ay bés yi nga xam ne euh, dañ koy ubbi aw awloo ko tey jii nan ngeen jàngatee mesure bi yéen ñi ne doon ay commerçants. jërëjëf soxna si ñu ngi lay gërëm bu baax di nuyu seen auditeurs yi la ñuy déglu ak auditrices yi di wax rek ne jàngat bi ci am mooy dañoo tombeek jamono joo xam ne dafa am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ñu di ko wax feebar bu ñuy wax Covid 19 coronavirus bi mu dalee ci suñu kaw ñun ñëpp en tant que citoyen en tant que des sénégalais dañ ko lu ñaaw la ko di jéem aussi li nga xam ne moom lañ mën ci suñu côté mooy ku ci nekk la nga xam ne moom la la kër docteur sant nga di ko def. Mm-hmm. li nga xam ne nag mooy décision bi nga xam ne nguur gi wala boog suñuy kilifa jël nañ ko jëmale ko ci commerçant ñun li nga xam ne seetlu ñu ci am mooy te dañ ko war a wax ndaje mu njëkk ma ma nga xam ne moom la préfet convoqué dajale ko ay yenn commerçant ak yenn ñu nekk ci secteur bi. Mhm. ACIS mooy association des commerçants industriels du Sénégal yëguñ ko woon bokkuñ ci woon. d'accord biñ information yu jugee te réunion le ni ñu def mooy jël sunu téléphone jël sunu tànk ak sunu kaddu dem waxtaan ak kilifa bi ne ko lu tax ACIS bokku ci. bu ñu seetloo ne kat ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu commerce yi ñu bëri fi ñu toll nii yàlla def na lool ACIS la ñu bokk. Mhm. mu rafetlu it sunu tànk ak suñu kaddu ne ñu ah loolu de xëy na erreur la ci ñoom waaye day bu beneen yoonatee danañ ci bàyyi xel. Mhm. déglu ñu wax dëgg yàlla bi ñu dégloo it ñu jox ko ay proposition c'est-à-dire ñu jox ko ñun li nga xam ne moom lañ xalaat ne noonu lañ ko war a doxalee. Mhm. mooy lan bu fekkee ne dañoo nekk Sénégal. ñu ne kat ñun ay la yéwén li nga xam ne mooy jógee ci sunu euh, liggéeykat di dugg ci poosu nguur gi buñ ko xaymaa boo jëlee téeméer bi juróom-ñetti fukk yi daanaka ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee secteur informel c'est-à-dire ñiy yëngatu ci li nga xamante ne xëy na euh, formelul mhm. ñooñu kat ñoom ñooy dugal xaalis bu toll noonu ci gafa ko nguur gi mhm. te boo ko seetloo mooy ñi nga xam ne décision bi jógee ci préfet ne dafay tëj marché yi ñoom la gën a laal bu fekkee ne loolu la nag ñu war a def lu mel noonu ña nga xam ne ñooy nekk ci liggéeykat yee nga xam ne ñooy nekk ci secteur boobu li nga war a def mooy waxtaan ak ñoom laaj leen seen xalaat ci mbir mi nga xam ne moom la nar a def. te yéen lan moo ci seen xalaat tey jii. biñ ko joxee suñu xalaat mm-hmm. mooy. bu fekkee ne da ngaa jël semaine bi muy juróom-ñaari fan. Mm-hmm. nga ne ñetti fan yii euh, ñi nga xam ne ñooy jaay mbiru wàllu lekk ñoo koy liggéey. yeneen ñaari fan yi li nga xam ne gars lépp lu jëm ci euh, lépp lu laalu wàllu lekk ñoo ci liggéey ñu ne dafa tuuti lu tax ñu ne dafa tuuti ndax ki nga xam ne moom mooy ubbi buti am am ci dara pour yóbbu ci njabootam benn am ci dara pour fay buti am am ci dara pour fay ay dépôt kooku bu fekkee ne semaine bi yëpp da nga koo nar a ñaari fan dafay métti ñu ne ñun de bu ñu sañoon ngeen bàyyi ñu ñu liggéey altine talaata àllarba ak alxames mm-hmm. muy ñeenti fan sax boobu ci semaine bi. Mhm. bu ko defee ñu mën a fay suñuy eh, eh, impôt ñu mën a fay suñuy suñuy magasin. ñu mën a fay suñuy magasin supporter charge yi ci gàttal. Mhm. loolu bu fekkee ne amuñ ko it ngeen fexe ba ñaari fan yi nga xam ne moom ngeen ñu jox ngeen yokkoon ñu ci bokk samedi muy ñetti fan. bu ko defee samedi buñ teelee wàcc da ngeen mën a am yéen seen possibilité bu toll nii defar marché bi raxasaat ko defar ci li nga xam ne moom moo ci war loolu ñu yokk ci ne ñun de buñ señoon comme dañoo nekk ci dëkk boo xam ne économie bi demeewut noonu. Mhm. duñ développé wuñ au lieu ñuy rey économie bi te santé bi li nga xam ne moom mooy jafe-jafe bi jugee gu fi nañ fexe nu ñu dundee ak moom ci naka ñun dañoo jàpp ne fiñ toll nii ñuy wax waxu cas communautaire solo si war a am ak solution bi nga xamante ni moom moo war a am dafa war a jugee ci nit ñi. Mhm. mooy la solution doit issue de ce qu'on appelle la communauté comme que nag ci nit ñi la solution bi war a jógee ñun en tant que commerçant pare nañ te ci lañ nekk nii parce que ñu ngi sensibiliser suñu mbokk commerçant waaye nag li nga xamante ne ni moom mooy nguur gi nañ ñu ñëw fekkal si ñu ci jàppale googu ba pare kat nañu au lieu ngeen di tëj def leen nangam ak nangam ak nangam li nga xam ne moom la kër docteur santaane def leen ko marché Sénégal yi ni bindoo. Mhm. boo ci génnee wax marché hebdomadaire. mën wala ay buntu yu bëri. buñ ko buñ ko organiser mën nañ fexe ba marché ba ku fay dugg raxasu ku fay génn raxasu. est-ce que am ngeen yaakaar ne li ngeen di wax nii marché ndax mën nañ contrôler ku dugg euh, génn raxasu ku dugg distanciation beeg yooyu ñu respecter normes yi. man dama jàpp ne question de responsabilité individuelle la tey jii bu ñu seetee li nga xam ne moom mooy xew ci li ñuy wax euh, supermarché yi. Mhm. du ma tudd mais buñ seetloo la fay xew bu fekkoon ne bàyyi nañ marché yi di jaay parce que la nañ fàttali benn affaire mm-hmm. la ñuy jaay ca marché moom la ñuy jaay ci yaa ngi may dégg. Mm-hmm. la ñuy ca moom la ñuy jaay ci supermarché. Mm-hmm. nañ xool rek ñu seetlu un foo xam ne c'est fermé hermétiquement bu fa ay nit di faral di dajaloo. duñ ay docteur de. Mhm. mais xam nañ ne ci liñ dégg ci feebar bi fa lay gën a ëppee. gis nañ ne tamit euh, kii euh, commerçant yi ñoo ngi gën di soulever wu gis nañ ko ca Kër Massar gisaat ko ca Parcelles Assainies ndax euh, jàpp leen ne am na loo xam ne buñ ko defee li nga xam ne ñu ngi koy njott duñ ci àgg muy soulèvement populaire. ah góor gu ne góor la. Mhm. te ku nekk ci ñun la nga yaakaar pour dundee ko la nga yaakaar pour fayee ko say engagement buñ ko naree dindi ci yow dana am fulum laal ci yow loolu nit la c'est l'être humain qui comme sax d'accord mm-hmm. léegi bu fekkee ne loolu la demee te ñu profité ci remercier bu baax a baax baax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ACIS seen délégation ak seen président ndax la ndax ma wax la benn affaire la nga xam ne moo xew Kër Massar bu taxuloon ak délégation ACIS bu jógee Dakar dem Kër Massar malgré li xew yëpp dem waxtaan ak commerçant yi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy maire bi waxtaan aussi ak ki nga xam ne moom mooy préfet bi ah mënoon naa ñaaw de. kon da ngeen bëggoon ne dafa am lu commerçant yi la lool. dafa am sësoon nañ sësoon nañ rek sax sësoon nañ parce que amatuñu woon sax koo xamante ni moom la ñu ruusal moom la ñu seet bu ngeen fa nekkoon di ngeen xam ne sax ni ni yàlla tere ga ay gaañ-gaañ wala sax bakkan bu doon xëjoon na ca. bu fekk fekkutoon ne amuloon benn association commerçante bu responsable mhm. bu leen bàyyi xel bu ñu wax assise bu fa ñëw jàkkaarloo ak ñoom parce que demoon nañ ba autorités yi mënatuñu ñu loon tey ñu dem jàkkaarloo ak ñoom waxtaan ak ñoom ba ñu dal d'accord wax ci leneen uh-huh. wax ci mooy li nga xam ne xëy na ñun ci ñun uh-huh. ñun jàpp nañ ne moom la ñu war a privilégié waxtaan daal boo tollee ci yenn situation yi uh-huh. comme lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ku ci nekk ci ñun daf cee war dugal li nga xam ne moom a sa xorom surtout bu fekkee ne ñun ñi nga xam ne ñoom décision yi ñuy jël ñun lañ koy jël te tubaab dafa ne bu nit di def benn mbir ngir yow te boolewoo la ci daf koy def contre yow. d'accord euh, kon euh, monsieur Guèye ñu wax ci leneen wax ci sachet plastique yi gis nañ ne jamono ji Sénégal loi bi dëggal na ko entré na en vigueur ñu gis leen ngeen tax am benn taxawaay bi nga xam ne taxawoon ngeen ko fan yële wees lan moo waral ñu dégg leen ci. li ko waral mooy ni ñu ko nar defee moo dañoo jàpp ne loolu du yoon benn waaye da doy na waar doy waar goo xam ne xamuñ sax nuñ ko war a mën a tuddee bu fekkee ne dañoo nekk ci dëkk bu ñuy wax Sénégal 2015. Mm-hmm. nga ne xeetu mbuus yii de bu leen ko fi indee. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu d'accord ci ne xeetu mbuus yi dootuñ ko indi. jamono di dox ba njëgg ba 2020. Mm-hmm. nga ne avril 2020 20 avril précisément bu leen indee sax faf mbuus. ñun ñu ne bu fekkee da nga ne bu leen te amoon nañu ñu te nekk di góorgóorlu am na ci sax ñoo xamante ni état bi ci boppam ci structure yoo xam ne mooy financé jeunes yi moo leen financé ci boppam pour ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy njaayum ndox. Mm-hmm. mais ñu boo leen naree aaye loolu ñuy def ay la yowin nag wax dëgg yàlla war ngaa mën a waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ne leen yéen kat fi mu ne nii day dañoo bëgg aayu mbuus nangam nangam nangam. kon defu ko dañ leen ci beddi defuñu ko ñun ñi nga xam ne association responsable lañu ba ñu demee gisante ak moom muy ministre bi lam ñu tontu dinaa la ko wax. mooy mhm. ñi nga xam ne yéen am ngeen ay mbuus ci frontières yi jël leen mbuus yi ngeen jaayee ko ci yeneen dëkk bi wala ngeen sànni ko ci géej waaye le vin moom ak kenn mënul mbuus ko waane ba duma def li nga xamante ni moom lañ bëgg a def mooy interdiction de cette place léegi ñu ne waaw d'accord mu ñu dem nag ba ñu ne li nga xam ne moo nekk ci frontières yi dootu leen ko génne. ñu dem douane douane nañu ah ñun de mënuñ leen a jox seen seen bagage yi nekk ci frontières yi ak ci port yi parce que ministre de l'environnement joxe autorisation li doy waar ci mbir mi. Mhm. nga toog nag ne fi mu ne nii kat kon amatuma pexe naa toog di continuer di fay surestarie di continuer di fay magasinage di continuer di fay parce que camions yi ñu ngi fa yii ñu ngi ci port bi te il faut nga fay. Mhm. ñu continuer di fay suñu xaalis. nga toog bañ ne le avril fukki application en rigueur wu bi loi bi benn xaw ma autorisation la xaw ma lu mu doon yow commerçant nga dell euh, douane woo la ne la ñëwal mën ngaa génne sa bagage parce que kilifa ga ko tere woon nangu na ko fukki fan a des de nous sommes le 10 avril presque. Mm-hmm. Mm-hmm. nga génne say bagage li doy waar mooy nga génne say bagage ñu teg ci ñaari fan wala ci suba ga am ñi nga xam ne ñoo jugee ca ministère de l'environnement ñu ne kilifa ga nga xam ne moo téye woon bagage ca frontière moo leen wax ne leen dugal leen ko ñu ñëw dédouané fay ñu dugal. Mhm. mu ñëw di ko nangu. mais ci dans quel pays xanaa kay bu fekkee ne yow yaa téye woon mbir mi dem nga ba joxe autorisation ne nañ ko dugal. Mhm. li xel ma na nangu nag. doo doo doo bàyyi nit ñi fay seen xaalis ba pare dugal ko nga xëy di ko nangu. li xel mën nagu mooy. Mhm. war nga loolu mën a bàyyi nag ba loolu nga xam ne d'accord ko pour ñu dugal ko. ñu ko bokk sax nga man a xam ne kat ñii nii perte nañ seen xaalis perte nañ seen temps waaye nangu ba pare ne dugal nga dugal te su bëgg mu ñëw ne daf koy nanguwaat parce que waroo ko woon a dugal. lan lay nuru arnaque sax boobu boobu na ma yàlla baal te jéggal bëgguma wax sax tur bi. waaye yéen lan ngeen bëggoon ca wet waa ne ngeen ñu bàyyi leen soit ngeen écoulé wala dafa am yeneen alternative yi nga xam ne. nguur gi mais da ngay aaye plastique am na yu fi dugg yow yaa ko wax ne na fi dugg. Mhm. am na ñuy liggéey ci wàllu plastique yow yaa leen sax financé pour ñu liggéey ci wàllu mhm. bàyyi leen ne leen kat may naa leen nangam ci temps boo xamante ni danañ war a mën a écouler jaay. ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci secteur boobu noonu di def ay ndox ak nangam nangam danañ mën a def seen transformation dem ci beneen secteur. d'accord tey jii bu état bi di tabax wala muy tabax terrain wala muy def lépp lu mu mënti def. Mhm. bu di ko jaarale ci ay kër yoo xam ne fañ nekk jaarul yoon nu ñu def <laughs> dañu indemniser borom kër ya non. donc loolu ngeen ci namoon. di mais li li mën a li xel mën a nangu loolu la normalement dañoo waroon a évaluer li nga xamante ni moom moo nekk ci secteur bi évaluer ko bu ñu mënta fay lépp ñu damp nit ñi ne leen ah jéem leen seeti leneen ci jamono joo xam ne. yeneen dëkk yi nga xam ne ñooñu ëpp doole sax te war appliquer loi bi ñuy wax interdiction des sachets plastiques parce que nag encore une fois ñun contre li nga xam ne moom mooy euh, loi bi dañoo bëgg lu protéger environnement bi mm-hmm. mais comme yeneen dëkk yi nga xam ne ñooñu ëpp doole ñu ngi koy def d'une manière graduelle li tubaab di wax d'une manière graduelle cest à ko def tepp tepp ndànk-ndànk mm-hmm. ba d'ici am na sax ñoo xam ne dañ ne fii deux mille trente lañ ko mais lu ñu teree def loolu ñun Sénégal mm-hmm. wala boog bu loolu mënta am ñu valoriser li nga xam ne moom mooy déchet plastique d'accord tey jii tey jii yow doo dox mukk ci mbedd mi ba gis weñ xam nga lu tax doo dox ba gis weñ mhm. di fakkas ka du ci weñ parce que weñ bi valoriser nañ ko de sorte que nit ñi dañuy wër sax weñ di ko for di ko dem di jaay d'accord nañ ko def ci plastique bi mhm. parce que boo ko utiliser mën nga ci def pavage monsieur Guèye juste qu'on mhm. écoute les d'accord maa ngi jéggalu euh, waxtu wi moo ñu xoj plutôt ma lay jaajafal bu baax a baax amul problème amul problème et puis ñu ngi leen di jaajëfale fi di jégalu a bien marché. d'accord merci beaucoup Pape Modou Gueye moo yor kàddu wayit communication association des commerçants industriels du Sénégal ASIF ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup